yow mii jëwriñu Cheikh Moustapha mu ñëw ci yow dëkkaat lay loxoom waaye sakku ñaan nga ñaanal ko ba li mu ci Serigne Touba yéene ko Cheikh Moustapha mu mën ko yeggale. xam na ne yow yaay Cheikh Moustapha. yaay wéeruwaayam ànd naag njaboot gi ak personnel bi yëpp ñëw fi sa kanam sakku nga ñaanal ko. ndax bis bii lim man benn bis mënu ko bis bii képp ko man mun nag yegg si na Mbakke sàkku ñaan nga ñaanal ko wallaay wallaay dégg nga sëñ bi ne daañu ko ñaanal ne daañu ñaanaat incha rabbi bu neexee yàlla nga xam ne ne ñaan ñaanam mosul jóg ci ñun ne bugaan ne xam ne sa ñaan mosul jóg ci moom wallaay wallaay Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf talal loxo yi waaw